waaw cas bi nga xamee ni moom lañu fi indi tey moo mottali li nga xam ne moom mooy vidéo bi passé mooy vol bi mooy vol 2 bi euh, muy benn jigéen boo xamee ni senegal ji la nekkoon xam nga bari na ay xale yu góor yuy takk jigéen bu nekk bitim réew mais aussi bari na ay faatu-faatu yu nekk bitim réew ñaare ñoom ñooy yóbbu seen jëkkër bitim réew mais kii nag moom moo yóbbu jëkkëram bitim réew ndax moom moo jëlee jëkkëram fii yóbbu ko bitim réew ànd ak jëkkër ji di daan ku jëkk di daan seen doole mais dafa am ay góor yu baadoola ñu baal ma ci kàddu bi mais dafa am ay góor yoo xam ne dëgg-dëgg jëriñoo defal benn teraanga ndax bu la jigéen jëlee fii ci réew mi yóbbu la bitim réew te pourtant sëy ak yaakaar ci yow mbaax a tax mu def lu ni mel mu yóbbu la bitim réew nga dem ba jekku bitim réew am ak moom lu mat ñeenti doom bitim réew xéewal yi yokku parce que yàlla ubbi na sa buntu taraanga nga dem ba yàlla may la gën la may kattan nga am fa contrat am fa liggéey gis fa beneen jigéen boo xam ne du sénégalaise mais jigéen nasaraan la maanaam métis la waa ji ci boppam dafa mujj di doxaan métis boobu ba jabaram xam ne dafay doxaan matis bi mais booy doxaan sax ba sa jabar bi la fa yóbbu nga am ak moom ñeenti doom sëygu moom au moins di sept mais au moins sax nga toog ne ko dama bëgg a dégg diw nangam ak nangam dafa loolu de waa ji waa ji ci boppam dafa xëy jël propre responsabilité am gis nga li ko ndaw ci defaloon yóbbu ko moom la ndaw see defal yóbbu ko Amérique maanaam dafa bëgganteeg ndaw sele xamni ni mënta lang ak mom ci dëkk bu mu nekk ak jabar ji ndaw ci ne dama bëggoon ñu am vacances États-Unis mu defar ay këyitam mom mok ndaw ci ca bopum wax jabar ji mom dafa am liggéey bu mu États-Unis parce que jamono ji fi neexatul ca bañ ne ko amul benn problème mais lima jaaxal moy xalé yi nga xamni ñoom nga may bayal fi ci réew mi xalé dañ la min dañ la tax wax ak mom lepp ci war ci walu ngor ndax jigéen yàgg naa am ngor bu leen fàtte loolu jëfam lu mu ñaaw ñaaw jigéen yàgg naa am ngor ndax lislaam bi muy tële jigéen ñi njëkk a gëm rasulilaay ba na bi ñàkkee lool nekk ci difficulté jigéen ne ko njëkk financé xaalisam ba lislaam laajee bakken soxna su ma yem mu njëkk joxe bakkanam mais nag bi alxuraan demee ba bëgg a réer ci xalifa Usmaan ibnul Affaan jigéen ñi dajale woon dajale woon alxuraanul karim waaye nag buñ fàtte ne njol màkk kàddam yu mujj bi muy mujjee faatu ci pooju soxna Aysa la faatoo kon jigéen lu am bëral la ci lislaam kon jigéen yàgg naa di yàgg naa am diñte ci boppam kii nag may wax yéen moo ci raw ndax wax naa ak jëkkër ja wax bu rafet jëkkër ja tontu ko wax ju rafet mais fekk lépp ay fen la waji andak bobu la jigen dem bitim rew mais bu yemon sax ci dem bitim rew mu tane mais dafa wo waji eh, eh, ay domam yàq daru sen yaay xamal len ni sen yaay jubul cagala na daru sen yaay ci xale yi ba xal yi muju bañ sen yaay xale yi ci bobu muju bañ sen yaay adresse ku lu ñaaw tuumal ko yaa tax suñu papa abandonné la dem and benen jigen parce que dafa la gis ngay jaay sa bop wala ngay def dara mu watal man ne ma daaw dara amu ci ma gessu ko bi moy ñaari yo bi yor naa ko diko gessu ta li waji wax dara amu ci mo mo jëf-jëfinam gu ñaaw bo xamee ni as du ko jëf ta goor yag ko toroxal jigen jigen yag dimbali goor goor diko toroxal jaar ak fu ñaawa ñaaw yak deram ma am ci ay xibaar yu baree bari ba xam ni xëy na feeg ay at weer ci kanam di ngeen xam ne li ma leen wax ni am na yor naa ci dossier yoo xam ne du jeex ay góor yu toroxal jigéen xam naa ni sax xibaar bi das na mais dañu koy dagg dañu koy tënk après ñëwaat ne fan la waa ji mujjee ak fan la ndaw si mujjee mais fi may wax ak yéen nii ndaw si ay doom dañu ko abandonné ni ko seen baay abandonné bàyyi ko ni ko seen baay bàyyee seen ndey wit na cundum te lépp moo ko liggéey ndax moo jëlee fii seen baay yóbbu ko bitim réew am ak moom fa ay njaboot lu yor ko ba seen baay yor woon dara ba mu am leewul woon dara dinaa ci ñëwaat du yàgg lool ngeen xaar ko dinaa ko àggaliwaat ndax temps bi moo ñu ko mayul bul fàtte mu ko abonné ci seen bi ndax loolu mooy suñu ndimbal tey itam mooy seen ndimbal jërë ngeen jëf